bii mooy alifun Abdourahman leer na bii mooy alifun bii mooy alifun bii mooy baa un baa un moo am benn tomb ci suuf bii mooy taa un moo am ñaari tomb ci kaw bii mooy saa un saa un moo am ñetti tomb ci kaw saa un kon am nga alifun am nga baa un am nga taa un am nga saa un alifun baa un taa un saa un saa un sama làmmiñ daa xaw génn tuuti saa un mbokk mi ñett yi boo seetloo ñoo niroo am na leen wuuteel nag moom laa bëgg a bàyyi xel bii mooy jiimun jiimun jiimun ji jiimun bii mooy xaaun dafa oyof xaaun xaaun ñagasul dafa oyof xaaun bii mooy xaaun comme kuy xaatandiku rek nga baal ma comme kuy xaatandiku xaaun xaaun xaaun kon moo am tomb ci kaw bii mooy jiimun xaaun xaaun jiimun xaaun xaaun jiimun xaaun xaaun jiimun bi majuscule la am na minuscule xaaun bi majuscule la am na minuscule xaaun majuscule la am na minuscule minuscule majuscule mooy lettre bu mag la minuscule mooy lettre bu ndaw la kon jiimun na xam ne dina dina mel nii dina mel nii dina mel kon yépp jiimun la jiimun majuscule la minuscule miniskil kon jiimun gis nga ko ñett la yépp tomb yi mi ngi nekk ci suuf bàyyi ko xel xaa un bi xaa un xaa un gis nga ko xaa un xaa un xaa un kii majuscule la minuscule minuscule majuscule minuscule ma def nii bii aussi xaa un xaa ah, un yaakaar naa leer na ci de xaa un xaa un xaa un gis nga ko kon yii mooy majuscule yi majuscule majuscule minuscule minuscule minuscule lu tax lu tax loolu Abdourahman gis nga jiimun bu fekkee dafa nekk ci commencement mot bi nii lañ koy bindee bu nekkee ci digg mot nii lañ koy bindee gis nga languette bi gis nga languette bi moo lay wan ni am na lu nekk ci ginnaawam dina leer incha allahu taala gis nga ko jiimun xaaun bu nekkee début mot ñu leen koy bindee bu nekkee au milieu mot au milieu du mot ñu leen koy bindee xaaun aussi noonu la bu nekkee début mot ñu leen koy bindee bu nekkee au millier ñu lañ koy bindee loolu loolooy njariñ li kon am nga jiimun am nga xaaun am nga xaaun jiimun xaaun xaaun gis nga ko yii ay jiimun lañ yii mooy ay xaaun la yii ay xaaun la kon am nga alifun baaun taaun saaun alifun baaun benn tomb la taaun saaun jiimun xaaun xaaun gis nga ko ñu dem daalun zaalun daalun zaalun daalun zaalun daalun mooy bu amul tomb zaalun mooy bu amee tomb zaalun zaalun zaalun làmmiñ wi na yéeg ci bëñ bi na yéeg ci bëñ bi waaye ci féete biir zaaun zaalun zaalun daalun zaalun bii mooy raun zaayun raa un zaayu gis nga ko amul tomb bi amul tomb moo nekk raa un moom am nañ ci français ndax r la zaayun gis nga zaayun comme z zaayun raayun raa un zaayun raa un zaayun ñu dem ba tey ci ñaar ñaari yi kon bi ñett la ñaar ñaar ya nekk nii raa un zaayun ñetti bëñ lay am Sinun, Shinun, bii ñett tomb la am Sinun, Shinun, siinun chiinun ñaar ñaar la bii ñaar la bii ñaar la bii ñaar la gis nga ko siinun bu dee siin la es siinun mooy bii bu amul tomb bu amee ñetti tomb chiinun chiinun ch soo ko mi ch Shinun, Shinun, mu nekk nii siinun chiinun yop ay majuscule la bi amul tombu moy sadun sadun, sadun, bi am tombu nek daadun badun, amul ci français amul ci anglais daadun badun, da ndax bu fekke da nga ni amna ci français bi dalul nga bëgg bindi dé bi nga bëgg bindi dé amul cohérence kon badun, da day xaw day tak bo bo bo bo bo dangay xawa a do ngang bax dadun dadun sadun dadun dadun sadun dadun de nga sadun dadun batay ñaar ñaar yi gis nga ko bi waun waun même bi français amuko anglais amuko waun waun waun day tak po po to poun bokul ak taun ha boo moy mooy taun nga bëgg biñu tee wo poun nga bëgg biñu te amul cohérence ko gis nga motax man la lak français ak lak arab bokku ñu yoon langue française ak langue Arab bokku ñu yoon arab da jaar ni français jaar ni bokku ñu yoon kon poun poun bi moy voun voun poun voun po un po un po un ragal naa yaa ngi may gis po un bi zo un zo zo zo zo un zo un ba tey ñu ñëw ci ñaar ñaar yi ñaar yi aussi bii mooy aynun bii mooy xaynun xaynun aynun xaynun aynun ghaynun lettre yépp amul ci français amul ci anglais aynun ghaynun aynun aynun da ngay sommes sabakan. aynun bëgg def transcription euh, français bëgg jël arabe transcrire en français aynun koy transcrire bind alayhim waxoon bind benn nga bind a wala nga bind h rek a walla h amul cohérence donc aynun aynun aynun la h h la a a la bokkuñu yoon arabe ak français bokkuñu yoon kon loolu euh, nañ ci noppalu mboolem koo xam ne yaa ngi jàng tubaab wala yaa ngi jàng anglais soo bëggee lire arab ñëwal jël lettre arab yi directement nga liir ko nga jàng ko mën koo liir boole ko sa français boole ko sa arabe donc loolu mooy loolu mooy tax boo demee ba commencé liir bu ñu demee ba commencé euh, boo liiree ñu ne ñu ne ah kii kat euh, nja njàng mi bënn na nun bi mooy xaynun xaynun xaynun aynun xaynun aynun mooy bi amul tomb xaynun mooy bi am tomb ñëwaat ci yeneen ñaari bii mooy ñu baal ma bii mooy faun, faun faa un bii mooy bu f baax na faa f faun, un dégg nga fë faa un f la fë mu leer bii nag mooy xaafun day dëggal xaafun xo xo xo xo xaafun faun un xaafun gis nga xaafun faa un xaafun kon ñu demaat alifun baun taun taa jimun haun un dalun xaa un راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء ظاء عين غين فاء قاف منيوات نملا وانا عين اك غين تي سين مايسكول امنا اي ميسكيل كون من يوتي nga comme ni nga jàppee jiimun xaaun xaaun comme jàpp nga seeni minuscule nga jàpp aussi minuscule yi aynun ak xaynun kon ñu ngi ci faaun xaafun